dama waxoon ne bu soobee suñu borom bu la quinze incha dinañ xam ne caravane ñu dañ doon caaxaan defe naa ne tey lépp leer na dëggam soob na yàlla bu le 23 janvier incha si kàttan suñu borom yàlla dinañu may ndam sedd guy olof dof ne ki kay def kii defantu ak kii def bokkuñu ñun nag xam naa ne tey wóor ñooy candidat bi nga xam ne moom la wàtte ngay yëpp doon xaar man dama wax sax man tey dama waroon def bilan waruma woon joxe programme dama waroon def bilan parce que li tax ma ne dama war a def bilan bari na loo xam ne tey maire yi fi ñoo ko waroon def defuñu ko man maa ko def wóor na waa Tëngéej kon donc tey man li tax ma volontaire pour nekk li tax ma volontaire pour nekk mooy xam naa lan mooy problème mu Tëngéej xam naa problème mu tëngeeg si santé xam naa problème mu tëngeeg si éducation xam naa problème mu tëngeeg si sécurité xam naa problème mu tëngeeg si euh, euh, jàppale ndaw yi pour que au ñu am lu ñuy def loolu xam naa ko maa ngi si doon dox pendant su ma jógee incha allah suñu yàlla dafa lay ndam dañuy jóg rek déroulé li nga xam ne moo ne tax a pour que tëngeej am un changement te incha allah si kàttanu suñu borom Rufisque dina am changement Rufisque Nord.